Amis téléspectateurs de Canal TV, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale euh, Café Show Plus euh, de ce octobre di am mbégte euh, di partager yéen li nga xam ne ne mooy Café Show Plus matinal di jëfal ñi nga xam ne ñoo ñu suivre di am mbégte di wax ne yéen ñi nga xam ne ñoo ñu suivre bon début de semaine parce que mardi bi nekk na mardi boo xam ne mardi mbégte la mardi mardi boo xam ne mardi boo xam ne mardi cawarte la parce que ñun ñuy def émission bi dañuy ànd ak cawarte matinale nga xam ne ne mooy ñoo partenaire partenaires yi nga xam ne ay partenaires yu mucc ayib nañ partenaires yi xam ne ni ñoom seen jëm bopp ñun dañuy am mbégte nekk ñu nekk suñu partenaire ku mel ne épice secret ak Aquaterra mu nekk ñaari sponsor yoo xam ne ne ñoom dañoo yàgg a ànd ak ñun ci biir Café Show Plus di wax ne fi mu toll nii tey plateau bi dama koy partagé ki nga xam ne mooy euh, Papa Dieng saala Dieng saala nag nekk koo xam ne ne lépp lu jëm ci wàllum actualité du jour ci biir kër gi jëm ci wàllum café show plus moom moo ñu ko indi Dieng Saala ma bàyyi la nga nuyoo ko mbokk téléspectateur Kër Ndanane TV le grand Rukar maa ngi lay ziar. déjà ziar naa la. na nga yite mbaa am tawfeex. tey da ngaa yow ak cawarte lu ma. waaw mais xam nga rek lundi moom bu jàllee mardi ñëw rek moom sama cawarte bu bëri lay àndal. Badou waaw waaw. <laughs> ami internet Kër Ndanane TV internet Kër Ndanane TV la chaîne de a mais je suis bienvenu dans votre émission Café Show plus avec Ndiaye Rukar le grand Ndanane. <laughs> ayca Ndanane ci ci biir Kër Ndanane. dëgg la tamit doon nekk fi ay Ndanane régie bi ay Ndanane. ñuy seetaan doon ay daanaan wàlla mi ngoog kon mu nekk ay daanaan sur daanaan mais li may ni mooy ñi nga xam ne ne mooy les natifs du mois d' octobre ah, et c' est important les anniversaires tamit day baax mm. jàllale ci biir café show que ñoom dañuy bëgg naan lu ko amee ñun suñu anniversaire dinañu jàllale <laughs> mais ci kaw loolu dañuy jàllale ki nga xam ne mooy Dramé parce que tey la anniversaire am waa xéwal gi fitness ñëpp ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire à mon bro boobu noonu euh, mi ngi dëkk waaw Dramé Kadji soose parce soose yi tamit dañoo bëgg soos Ah, mais en général soose yi ñoom lan la ñuy tàmm di lekk sa moom bu ñu amee seen maafe bu baax rek dañuy am lu bari maafe bu am kànja gu dëgër gi. maafe fekk <laughs> ah, bu am yàpp bu bëri. <laughs> saa yoo xam nga la am nga affaire yi. ayca <laughs> mu nga kon donc désormais yéen ñi nga xam yéen ñuy suivre ci biir Café Show. vous mm-hmm. pouvez envoyer des messages selon ci émission bi par commentaire joxe seen date pour que ñun ñu mën di si référer di leen daal euh, souhaiter joyeux anniversaire bi yàgg dara tamit euh, Kër Ndanane TV dina commencer ay directam am ci page YouTube am ci page Facebook am mm-hmm. donc désormais du yàgg dara incha allahu mm-hmm. ñu mën a suivre sur Facebook en direct vos vos vos émissions. yi nga xam ne ñooy am ci biir kër gi. surtout ma émission matinale bi. mais jëpp waa jeg saal xam nga lu ma gën a neex ci ci ci ci bi. Ah. parce que mardi boo xëyee euh, yeewu. en fait parce que daf nit ñi kii naan bu ma yeewoo man damay sangu rek dem liggéey kii naan bu ma yeewoo man damay jàpp julli est-ce ay comprendre kii na bu ma yeewoo man foog ma naan café mm-hmm. mais en fait nit ki tey bu yeewoo moom lan la war a mën a def en fait ban norme la war a def déjà waaw man de ku ci mel ni man su ma yeewoo ba sangu ba jàpp julli nii ba madame teg ndekki di def dressement beeg yooyu noonu xam nga <laughs> non <laughs> damay foog foog ma am fu ma lay fiisee parce que daa am fu ma la rawee quoi <laughs> xam nga ba def li ba sañse ba jëkk ba tuuroo parfum bi téye saag bi war a liggéey non loolu benn affaire booy génn tamit noonu rek ngay génnee am na ku nekk Italie monsieur Diak ndeysaan bu xëyee nag ba dóor yàlla bu mu costume xam nga moom nag non grave grave googu <laughs> daa mën a sañse dafa mën sañse xam sañse yàlla bu mu sañse keroog keroog keroog way Youssou bi la dugal statut non j'étais ébahi. <laughs> ndeysaan parce que li ma li ma gën a neex ci moom. mooy que li muy sañse naa non nekk na nekk na nit ku humble nit koo xam ne nit ku baax la amul amul xaar ma yàlla kenn. Mm. Euh, moom ñëpp da leen jàppee ni ay boppam quoi. en fait mu nekk nit koo xam ne di jaajëfal tamit Youssou parce que ñoom moom xaritam la. Mm. Youssou Ndour am na benn clipam bu mu def sax grand mun naa ne moom moo ko jox yére veste bi mu soloon donc mu nekk affaire boo xam ne. Mm. affaire bu rafet la. donc en euh, li may waxati mooy que dañuy ñëw directement ci wàllum actualité parce que ñii suivre mbokku téléspectateur yi xaar di sawar sa actualité nga koy indi. dégg nga neexul fa tabarakallahu ah. macha allah kon ni koy defee chaque jour nag xam nga nag euh, joxe information dafa neex parce que tamit da ngay li gën a neex. nga génne baax nga génne ko li gën a duuf si nag bi. tamit dégg nga <laughs> génne ko mais tey nag ata lu may commencé mooy damaa xaw tiit ci réew mi saa looy tiit parce que ba ñu waxee wàllum coronavirus gars yi naan kantang kantang kantang kantang mu am benn maladie boo xam te ne dafa demoon mais dafa ñëwaat. ban feebar la. muy wàllum bu garaaw laa lay wax nii. moom fan la fan la fan la soxee ko ma ak fan la génnee moom. waaw ah tuberculose wàllum xam nga feebaru sëkkat la te parfois sëkkat bi day dem sax ba jàpp say poumon parfois ngay sëkkat bay. sëkkat est-ce que nekkul moom a dal man su fi dem ba léegi maa ngi sëkkat rek. <laughs> maman otal ma masque foofu gaaw mu gaaw. <laughs> parce que tamit da xam nga lu xam nga tamit ah yow saa yow après naa ànd ak yow de. ñu dem hôpital consulté wu comme que dëkk bi. Mhm. waaw lu ci mel ni Dakar Thiès Diourbel Kaolack et Saint-Louis mooy dëkk mooy mooy région yoo xamante ni foofu la gën a laal. Dakar mu doon lox Thiès. Thiès Saint-Louis Saint-Louis Ziguinchor Ziguinchor euh, ah, naa rek la foofu si dëkk yooyu rek la nekk si dëkk sa soo xoolee dëkk yooyu yëpp ah, ah. ay dëkk yoo xamante ne ñoo ëpp population Sénégal la donc mu doon loo xamante ni dafa dafa dafa dafa doy waar mm-hmm. te it ñu enregistré si loo xamante ne ay loo xamante ne mii mille mille neuf cent cent trente deux yoo xamante ne rek si région yooyu la muy soit muy Dakar Dakar kase Dakar kase kase mm-hmm. neuf cent cent deux kaa nañ ci amagum. d'accord nga nga nga demar ci foo xam te ne muy soit 44 pour cent de nation de taux du taux national. d'accord 44 pour cent yëpp ci saa yi dañoo am wàllum. mu doon loo xamante ne na ci gars yi bàyyi xel mu doon loo xamante ni feebar la boo xamante ni. Hmm. traitement bi metti na yàgg na. d'accord mais aussi tamit nag ku ko am. ñu xool naka lay mën a demee mais je suis tamit kuy sentir sa yaram. Mm. sëkkat wala benn affaire demal hôpital. kon vendredi yi fas yéene indi benn médecin rek mu wax ñu mu wax ñu si wàllum tuberculose parce que tamit dafay baax li xew ci dëkk bi ah. tamit nit ñi ñëw ci plateau bi di ci waxtaanee. xam nga kër ndaanaan fa day ñëw def si benn émission boo xam ne. Mm-hmm. lépp loo xamante ne rek tuberculose la. da ciy wax wax prévention yi wax mm. yan façon tuberculose moo am. Mm. wax tamit. lépp loo xamante ne feebar bi mun na la faa yóbbu mm. at boo ko amee naka ngay def ba mun a faju loolu gars yi jox maa ngi leen di jox rendez-vous tey jii la dina neex dina yokk d'accord ci kaw loolu lan nga ñu indiwaat <laughs> mais ceci tamit nag mu doon benn affaire boo xamante ne benn fait divers boo xamante ne gars yi dafa jaaxal léegi parce que léegi c'est ça ray bëri Lukaar maalum ray ah, moo taxit bi benn femme engrossée par un homme rencontré dans un bâtiment abandonné mm. la mariée accouche et jette le bébé dans un puits maanaam ku jigéen ki ci gàttal moom dañ ko ëmbal dafa tasee ku waa ji ci biir te ci biir batiment boo xam te ne kenn dëkku fa kenn dëkku fa def la ñuy def ba fa am bi am doom ba femme bi ëmb ba am ci doom femme bi jël doom ji femme bi dafa am dafa am jab dafa am jëkkër ba pare def jël doom ji sànni ko ci teen waaye yow fait divers boobu moom métti na bi non xam nga Sénégal tamit foog ñu xoolaat ko parce que ces saa yi ni meurtre yi dafa bari da gis ñi yor seen jabar doo ko bañu dee ñii di rayaate et tout ça il faut ñu sensibiliser nga jël xale bu juddu c'est ça te dégg nga jël ko mm-hmm. sànni ko noonu comme sax mais boo bëggul sa doom yaa xëy ci mulaana am na ñuy denc ah. ñuy denc ay xale boo xam ne dañ la koy tool jëmal nga jox leen ko du lee walaay ah en tout cas métti na trop di di di di képp koo xam ne yaa ngi koy déglu parce que neexu ci xol ah, yu mel ni nga ciy xëy di ci daj matinal ah, mais n'empêche cela c'est bon que mm. Dieng Saala expliqué leen li jëm ci wàllu actualité ndax yéen seen jëm bopp ngeen mun ko am parce que loolu nekk na loo xam ne lu important te ñi nga xam ne ñoo ñu siiw yow mi man li may wax rek yow mi may déglu nga nga xa toog di xalaat ne loolu war naa ko mën a def. Mm-hmm. génnee ko sa bopp te xam ne amul njëriñ. wallaay dëgg la te boo ko defee parce que doom jooju ngay jël di sànni. Mm-hmm. xamoo lan lay war a mën a doon ji ëllëg. c'est ça ak yan doom la war a mën a amati. Mm-hmm. parce que dañ nit boo ko rayee rey nga toute génération. imagine su réew moom kese de moom doom yi mu waroon am sët yi mu waroon am sëtaati sëtaati sëtaati sët yi mu waroon nga ko kon nit ki balaa nga def benn affaire na xool conséquences yi si war a mën a am ba pare te bakkan dafa doon loo xam te dafa diis ba kenn waru koo ñëw rek bëgg ko jël bëgg koo jël nii rek sànni ko si te rey bi dafa bari topp mais saa ñu ñëw ñu jublu ci réew mi rek fa tabaarakallaahu macha allah comme que le pétrole et le gaz le Sénégal gagne entre cinquante et pour cent di bénéfice général <laughs> la ko booy di waxee. man c'est am naa billet Qatar ba pare xam naa su ma joxee quatre cent mille. dama xam nga dama toog sama bopp sama sama koñ. booy bi yor ñu def groupe xam nga lool xale yi dañ koy tàmm di def. Hmm. wër yor seen i biteel lay tëgg. mais xale bi la muy mbala ak la muy tulli ak kay aw. Hmm. xale bi li muy aw mooy que xale bi mi ngi am presque ay quatre ans xale bi li muy aw xam nga. allo Sall jox ñu suñuy quatre cent mille kenn tulli mais man je me pose la question xale bi moom quatre cent mille yooyu noonu fan la ko déggee ak fan la ko xamee ak moom nan la nan la war nan la mën a def ba xam ne Aliou Sall war nañ jox suñuy quatre cent mille ñoo jox suñu quatre waaw nañ ko jox de bu ko joxoon mooy saa ma jël dëgg neexul mais aussi tamit nag bu doon noo xamante ni je trouve ça moo xamante ni man hmm. cinquante et pour cent bénéfice bu ñu si am hmm. dafa tuuti Sénégal d'accord parce que dëkk bu mel ni Sénégal yow nga defar sa pétrole et tout nit ñëw bëgg see am 40 wala 50 pour cent c'est trop. et c'est important tamit euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yoru ñu yëngu ci wàllum boobu noonu ñu am ci taxawaay am taxaw seen parce que Sénégal comme li may rek y a beaucoup de richesses et euh, Sénégal war na dépasser fii. vraiment surtout sax euh, ci ci ci côté sport ci côté culturel ci ci anam bu mu mënti nekk. anam donc euh, euh, davantage la ñi nga xam ne ñoo yor pàcc yooyu. ñu organiser waat dimbali tamit ndaw ñi dimbali ñi nga xam ne. ñoom affaire bi dafa war di jaar assemblée nationale gis nga lépp loo xamante ne rek si koom-koom Sénégal balaa ñoo xool par kan moo ci dañ ko war a voté. Mm-hmm. mu leer. am na yoo xam ne ñu ngi koy def am na yoo xam ne defuñu ko mais je suis tamit nag gis nga parce boo xoolee si wàllum phosphate bi. Mm-hmm. ak wàllum bële bi et yoo xam ne am nañ ko fi te it loolu sunu kii la bokk. Mm. si si si suñu si suñu ressource la bokk suñu ressource naturelle la bokk. tamit donc gars yi nañ ci may gars yi di ci waxtaanee di ko am ba trouver terrain d'entente. Mm. mais da ngay jéem a saag rek dégg ñu ni def nañ li soo xoolee la daan teg boo xoolee nañ gaa nañ gaantoo voté affaire bi dem dem jaay ko dem dem xaaj benn pàcc bi dem jaay ko mm. ñaata nit ñoo fa daan liggéey ñaata léegi chômeur nañu am mm. ñenn ñi orienté nañ leen ñeen ñi orienté guñ leen mais juste tamit nag dafa doy quoi mm. parce que juste que ñoom seen jëm bopp dañu war a sóoraale ñi nga xam ne ne ñooy euh, les sénégalais waaye c'est ça parce que ku nekk ci li ngay liggéey ci ngay suturlu pour mun a yóbbu sa kër donc tamit nit ki tamit balaa nga koy dàq da koy teg ci anam bu leer bu leer nit ki balaa nga koy jëlee fenn ak li mu daj ci coono nay la parce que nit sax da ngay gis des fois jëng saa la nit ki euh, tabax këram ba mu àgg. Mhm. mu ñëw xëy rek ñu ne ko kër gi moom kër gi da nga génn kër gi dal na benn pa maa ngi koy seetaan mhm. pa bi ñaari xale yu mu fay ñaari xale la la yarandoo musuta am doom moom ak mère bi mhm. ñi yar xale ñi yar ñaari xale yi ba ñaari xale yi màgg mu jeg ba sàgg après pa bi dem tukki bàyyi ñaari xale yi at mère bi ci kër gi mère bi gaa gaañu si diggante bi ka ka ka mu njëkk a yar dem laajte kayitu kër gi dem jox ko ay mbokkam tey yàlla vous imaginez ça jëm jóg dàcc ko gi dem jox ko ko ay mbokkam paa bi ñëw ñibbi si def dajam ak yooyu noonu jeeg ba sàgg am ñu ñëw ni ko kër gi da ngeen koy gën xoolal loolu mun leen ban kër mun leen kër gi dama koy te pikin fii la am pikin may gën kër gi sama kër la ñu ne ko noonu moom moo kër gi hmm. nii di jéeg-jéeg ba sàgg UC ñëw ak ay policiers yi ñëw yëkkati paa bi génn ko ci mbedd ba paa bi ci mbedd mi lay ci biir kër gi si si buntu kër gi lay fanaan at waa koñ bi mu ci waa koñ bi dañoo def solidarité ñëw di ko wéetal te paa na kër gi mi ngi ko jëndee woon 500000 à l'époque kon xam nga ni kër googu yàgg na. a des choses yoo bi am si koy xoolaat. bu baax di jàppale nit ñi parce que dafa war a am benn cabinet boo xamante ni. képp koo xamante ne état da ko war a def. Mm. képp comme dañ la néewal doole la nga am jàkkre te sa doole yeggul fenn fi. nga mm. dem foofu ñooñu jàppale la jël combat bi teg ko. dëkk bu développé noonu lay def. dëkk bu développé képp ku koo xamante ne amoo. dañ la war a mën a jàppale ba nga mujj ba soo amee problème ñu mun koo régler. Mhm. y a des choses yoo xamante ni c'est déplorable dans les hôpitaux. Mhm. boo fa demee couverture maladie universelle nañ jox. Mhm. da ngay gis yéen y a des choses yoo xamante ni da am sa malade ñun la boo amul lii duñ ko laal. te yooyu yëpp dañ ciy fas yéene waxtaanee ci biir café show. surtout ça. parce que ay thèmes la a des choses yoo xamante ne gis ah. il faut nga toog foo xamante day am koo xamante ni day toog comme ça bu ñu indee nit mu mu feebar. Mm-hmm. am noo xam ni mel na ko suñ ko indee. Mm-hmm. carrément am na ñoo xamante ni dañuy ñëw jël en charge malade ba pare faj ko ba pare. Mm-hmm. ni ko acca lan nga yor. tamit dégg acca jëng kontaan ci yow c'est ça <laughs> tamit ma ñëw si wàllum dem bee dikk bi Dakar dem dikk comme tamit ala Dakar dem dikk c'est ça nekk ci problème boo xamante ne problème bu grave la parce que tamit euh, bus en panne problème de pièce de recharge personnel démo démotivé donc mu doon loo xamante ni seen seen kaar yi gis bari dañoo paan mais kaar yi dina paan dëkk bi dafa taa ndox mi gis nga li jàll li taw bi waaye c'est ça tali ah? mhm. ah, tali mais en plus tamit assainissement bi a ñoom seen jëm bopp sax nañu mhm. war a organiser organiser parce que mënuma concevoir mhm. nga yoru bus yàpp ko ba mu fees dell nga ne tuy dugg ci biir paxub ndox di xuus mais sa bus yi bu yàggee day yàqu. day yàqu te da gis bus boo xam ne day ñëw fekk nit ki day fekk. Mhm. ndox bu nekk taaju tale ñu ñëw rek engagé ndox mi yow mi romb sax da lay tooyal ma amul du benn du yoon ñu may tooyal. ci <laughs> ci gàmmo gi man mi sànce ba jekk sol sama tóor balaa oto bi ñëw ni ma féef ñoom maman dañ ma doon reetal xam ma baal lii nii doy na waar parce que tamit ñoom ñi nga xam ne ne seen bus yi am na problème mhm. parce que bus yi nit ñi dañ ko soxla surtout ñuy xëy dem surtout ñuy xëy dem Dakar ñii di jógee euh, ñii di jugee Tëngéej fii nii ñii di jugee fi nga xam ne mooy Mbaaw ñii di jugee fi nga xam ne mooy Tëng Caaro yi xam nga Kër Massar et cetera parce que tamit nit ñi dañuy soxla dem dikki dem dikki bi tamit euh, maanaam mun naa ne organisation am na ci mm-hmm. mais lii nii moom bett na ma mm-hmm. mais nañ gën a nañ gën a taxawaat parce que nit ñi dañuy soxla li nga xam ne mooy bus yi waaw c'est ça sincèrement mu doon loo xamante ne na leen na gars yi déglu grand Luka rek parce que moom Fatawar Fakala wax macha allah euh, c'est un grand chroniqueur <laughs> Fatawar Fakala léegi ñu dem si wàll dëgg ah. dëpp bi muy suñu tonton Ousmane Sonko ak Tata Adji Sarr. ak kay <laughs> loolu laay ah, ci luñ ci indiwaat mu ni des postes mu ni Ousmane Sonko dans le fond. d'accord du mm. donc euh, ñu doon laajte affaire yi kañ la. kañ la Ousmane Sonko di jàkkaarloog procureur wala maître du juge nañ ko mënti wooye mhm. nee nañ léegi jege si na jege si na léegi mu jàkkaarloog moom ñu entendre ko dans la France d' accord oui c' est en tout cas daal fi mu toll nii Sénégal yi ñëpp war nañ leen mën a yee ci loolu surtout sax war nañ leen mën a yeewi sax laay wax parce que ñëpp a tënku ci loolu <laughs> te di xaar procès beeg jàmm projet boo xam ne ne ñun fi ñu toll nii bu ñu ko amee ba déglu xam li xew tamit c'est important parce que dégg nañ ci lu ne ay nit ñàkk nañ seen bakkan mu nekk loo xam ne ay nañ ci ba nii may wax yow sax ay nit tëj nañ leen ci tëj nañ leen ci jot nañ ay ñoom Karim Xuxaat xam mhm. ñeneen ak ay ñoom Karba Karbala Karbala boo limee parce que tamit ñi ci am domaine cra cra du moins ñoo xamante ne ñëpp war nañ leen mën a c'est ça génnee bàyyi leen ñu ñu delluwaat seen i mbokk comme ni ko euh, malaltaal Taal waxee. Mm-hmm. parce que ñun tamit euh, dañuy dañ ci wasu aar. c'est ça surtout ça parce que koo gis da nga sa frère la. sa frère parce que Sénégal dafa yaatu ñëpp ay mbokk nañ. ma ne koo fi rey yaa koy dëj. waaw yow <laughs> koo fi rey yaa koy dëj de. c'est c'est koo fi rey yaa koy dëj parce que da ngay da ngay di dem toog ñu naan nañ dem si dëju diw. Mhm. ana diw laa la ñu ne sa mbokk la wala sa léeg la nga jàpp sa bopp et puis alors que c'était trop tard. même même même Dieng Sall doguma la gis nga jamono ji nga xam ne ne manifestation yi am na mhm. dama am lu ma metti mhm. parce que da ngay gis homme de tenue bi soit dóor na doomu bàjjenam. ci manifestation bi mhm. soit dóor na jabaru magam ci ci manifestation bi te xamu ko wallaahi parce que manifestation boobu nag na manifestation boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci Sénégal donc di ñaan yàlla procès bii nii euh, ñu jëm mu gaaw am ci jàmm ak salaam gis nga dama lay doog euh, si homme yooyu ngay wax man daa am lu ma ci bëgg a wax mhm. muy ñoo xamante ne ay doomu réew mi nañ mhm. te sans ñoom yaakaar naa ne lukaar dara du dem te muy dëgg saa ñoom du ñu mën a nelaw ba yendoor mm-hmm. insécurité kon da ciy am ñu doon ñoo xamante ni fa tam boobu genre yooyu mel ne ñoom ñuy njëkk am problème mm-hmm. parce que ñi ñu war a jàkkaarloo dañuy jàkkaarloog seeni i rakk mm-hmm. jàkkaarloog seen i doom jàkkaarloog seen i jarbaat ñu war a jàmmaarloog ñoom yow yow mi di kii bi di manifestant bi boo deful ne yow mi di manifestant bi da ngay jël ñoom def ko def ko def leen seen noonu te mm. alors que ñoom seen liggéey nañu am te ñoom alors que ne bu ñu toogoon def ni yow yow bu ñu toogoon def si ñenn yi yow toog croiser les est ce que di nga mën a am yenn yi et tout ça bàyyi xel homme de tenue yi tey te di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci kaw ci kaw homme de tenue bu Sicap Mbao bi mhm. donc zone France ñu ngi leen di mhm. jaajëfal ñoom tamit ñu ngi def liggéey bu am solo mhm. euh, suñu euh, suñu poste police bu bees bi ñu teg fii tamit ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal parce que fi ñu toll nii gis nañ ne euh, commune de Mbao sécurité bi mi ngi commencé maa may door may tuñu <laughs> xam nga am célibataire nga xamuñu xamuñu xamuñu xarit bu ñu la waree jàpp xamuñu sax fi nga dëkk da xammee leen ko de wuy ma xam naa ne wax après ban koñ lay aw parce que saa moom mooy loolu dafa dafa dafa xaw a daa dafa xaw a tëradi <laughs> waa ji dem si wàllum bennoo boo ko yaakaar rek ñoo nga reyante seen biir de. lu xewati. ah nee nañ le troisième mandat bi ñu ne dafay am ñu du fi am. kan mooy du fi am. ah waa benn bokk naa seet ñoom seen biir. ñoom seen biir <laughs> ñoom nee nañ euh, troisième mandat day am troisième mandat du am. ah ñii dañuy léegi dañuy def euh, référendum entre ñoom ñu xool qu'est-ce que la qu'est-ce que ça va donner et tout ça a donné mm-hmm. donc man par rapport ak lii ma gisaat nii que ñoom ñu ngi xeex seen biir. Mm-hmm. mais li ci gën a am solo ba am solo mooy que ne Sénégal képp koo xam ne yaa ngi fi. mën mm-hmm. naa ne li jëm ci wàllu troisième mandat da koy bañ mhm. ah, am na ñoo xam ne tey ñu ngi koy nangu mhm. tey bu ñu demee ba seen biir ñoom mhm. am ñuy nangu troisième mandat am ñuy bañ troisième mandat kon donc maintenant man toute décision euh, revient président Macky Sall xam nga président Macky Sall ah, ah. donc euh, il est dans son jeu bu baax bu <laughs> baax parce que xam nga tax ma ne il est dans son jeu mooy carrément bu bëggoon na leeral leeral na bu yàgg mais lii muy def c'est pour manipuler. position non Macky Macky Macky du déposer troisième mandat. non déggu la fa Macky est-ce que est-ce que du dugal du dugal waa ji ñu fal premier ministre mu tuddati. Amadou Ba Amadou Ba. daa mel ne c'est pour manipuler <laughs> c'est pour manipuler l'opposition. Euh. bàyyi leen ñiy def ci débat boo xamante ne moom xam na débat bi lan mooy question lan mm-hmm. mooy réponse am bu yàgg parce que xam na qu'est-ce qu'il va faire. d'accord mais pour manipuler gars yi pour organiser yenn certaines choses leen. Mm-hmm. je ne dis du ma ma ne waaw. te muy te moom xam na carrément li muy jël. mooy mais ci kaw ci ci ñi nga xam ne ñoom la wax mais Aly Ngouille tamit jekk na ci président de est-ce que du ko dugal. 380 <laughs> milliards pour financer. yaay yaay tëb man damay changer quoi <laughs> jamono ji daa jàppale ne rek añ dem <laughs> yaa ngi de. c'est ça léegi ah, ah, bii. waaw dama lu wétali ma. dégg. parce que moom xam ngeen dafa ragal police xam ngeen Assane dafa ragal gendarme. mais mais mais nu mu mujjee ci autoroute à péage ba loolu moom waxoo leen ko PDG de. non loolu foog ma may ko gaay da ngay tooñ nga ni sa bis dina mais Assane Assane daal dafa dóor dafa wàcc ci autoroute à péage bi gaay am circulation bu métti. Mm-hmm. ndeysaan nag mu wàcc nag yor xam nga rek yor saagu kii bi. tournage kii bi at jóge si droit bi sonn. circulation bi lii ko rek mu ne saa yi saa yi day wàcc autoroute a péage. ci bi nag. dafa teg tànk rek gendarme bi ne ko eh yéegaatal. tegu ci baat de xam naa. saa yéeg fële ko yow sa moromu góor bi la ñu yéegal nga yéeg kii ku ñu mbéj nañu bëgg. am na dëgg ay loxo yi diis nañu yor de. man xam nga léegi loolu da ngay wàcc ma jox la cinq mille. <laughs> saa yi xooluma sax. du <laughs> keneen koo xamante ne ku yàlla baaxal la mu boo xam ne gaan <laughs> le grand ah, sama gaan nga nag dégg nga <laughs> moo ñuy jaxase mais aussi tamit nag si wàllum armement trois cent quatre-vingts milliards pour ah. financer l'armement Sénégal taxaw na temm pour defar wàllum euh, ginnaawam pour pour lépp lu ci mënti am rek mu mën a répondre présent lu ci mel ni guerre ak wala wala lépp loo xamante ne teg na jënd na 380 milliards lépp pour jënd ay ay armes. en tout cas daal li ma mën a wax mooy que ñun moom guerre moom ak yu ñu mel. Mhm. yàlla ñu ci yàlla musal. amiin mais lii li war ci wàllum armement ak li nga xam ne ne ay ay ay matériel la pour pour ñun suñu protection. Mhm. pour loo xam ne ñëwagul. Mhm. donc man d' accord naa ci loolu. c' te yàlla na yàlla def tamit matériel yi ñëw si jàmm. ay ay ay nu ko 4 avril génn ñu mën a génne suñu yenn matériel yi ñuy am. pour gars xaw a tiit pour gars xaw a mën a tiit parce euh, ko ci àdduna. non dafa neex non suñu 4 avril. non dara daax ko ci yéen xam nga xam nga xam nga 4 avril lu ci neex. Hmm. flambeau bi. billaay guddi gi nii guddi gi gaa yi yëkkati génn togg jër fala boobu di way saa bi passé rek bii di ñëw dañ koy couvrir non dañ koy couvrir incha allah mais aussi tamit ma ñëw benn affaire bu grave <laughs> bu grave nga am reetaan sax <laughs> ay Pablo Escobar ñoo am Sénégal <laughs> ñoom daal wàllum jaay yàmba beeg drogue bi daal mun naa ne ñoom daal gaa yi dañoo dañoo jommi bañ demee wakaam dañoo ñëw fekk foo xamante ne si film yi nañ ko doon gis hmm? gars yi drogue beeg affaire nii nañ ko tegee jël ko est-ce que nekkuñu Colombie wala. <laughs> mais mais mais Équateur. mais ñoom dañ leen mujjee jàpp. ah jàpp nañ leen ñoom ñëpp ma. si ñaata personne nañ wala. bari nañu bari nañu mais je suis tamit nag am na ñoo xam ne ñu ngi leen di topp tamit. parce que dañu foog ñu xool ñu nekk seen ginnaaw parce que drogue dafa doon loo xamante ni baadoolo du ko du ko indi. xam na xam nga benn affaire dafa am mooy que ne fi ñu toll nii Sénégal euh, ñi nga xam ne ñoo indi wàllum drogue bi. Hmm. Euh, ñoom seen jëm bopp. Hmm. ñooñu war a jàppale te dimbali ñu te ngir yàlla te bàyyi indi drogue bi Sénégal bi xam nga loo indi ñu jàpp ko tamit taal ko damay ragal bu ñu wàccee suuf nga ne ma sant dama kay kay kay jaay dëgg la dëkk bi daa dëgër ni mais tamit euh, juste que pour que ñu wax ne ne carrément que ne nekkul loo xam ne jumtukaay bu ñu war a jëfandikoo la en plus baaxul hmm. ci ci ndaw baaxul day delloo ginnaaw réew daay dégg te bi ci gën a hmm. garaaw tamit mooy que ne ndaw ñi tamit nañ gën a moytu Euh, li nga xam ne mooy wàllum yàmbaa bi wàllum drogue bi lépp loo xam ne. ak gaz bi ak gaz bi surtout sunu rakk yi bëgg a dee <laughs> non sérieux billahi man damay toog ba saag damay tiit. ci sunuy doom et tout ça parce que gaz bi da leen di da leen di tàggale ko seen sago en fait. non c'est du n'importe quoi. ma terminé fii amitié 3. amitié 3 la mosquée se transforme en salle de réunion. <laughs> wax de sunu mosquée yi nga xam ne. se transforme en salle de mais suñu mosquée yi lan moo ko war a mun a transformation ak lu xew foofu. voilà dañ doon def benn QG boo xamante ne kii mooy doon lii kii mooy doon lii ba ay. ci wàllum tànn ci wàllum tànn Naïm beeg. Imaam beeg yooyu Imaam mais mujj yi daal gars mm. ku si nekk da ngaa indi da ngaa ànd ak sa kon kon ñuy politique rek. vraiment mu doon loo xamante si à déplorer quand même parce que tamit euh, ah julli lépp loo xam xamante ne moske ak juma. Mm. pour jaamu yàlla la. gis nga ña ña doon sa jàkk ja dañ leen war a jàpp. nàbbali leen. waxuma la nàbbali sax de mais dañ leen war a tëj ñu xam ne ne suñu mosquée yi du ay fowukaay suñu jàkka yi du ay fowukaay nañ mm-hmm. respecté kilifa diine yi nañ respecté imaam yi. Mm-hmm. gis nga dafa am noo xam ne ne jotaay na mu tëddee la rek. surtout sax te jotaay boobu na mu tëddee. mooy mm-hmm. que ne kilifa yi waroon nañ am beneen taxawaay bay bàyyi xale yi di xeex ci biir jàkka ji. Hmm. gis nga ñay xeex dañoo ñeneen ñu nekk ci biir ñoo waroon ŋàbb ay yat fekk leen ci biir. dóor leen ba ñu nooy nepp te dafa am loo xam ne dafa mm-hmm. rafetul dafa rafetul ci Sénégal dafa rafetul ci gisin ci li nga mm-hmm. xam ne moom la nit ñi di xeex te képp koo xam ne nag xam kilifa diine nga mm-hmm. nga gis lu mel ni yaa ngi koy méttu képp koo xam ne ndaw nga même boo participé wu sax mais man jàpp naa ne jàkk man ak lu mu munti dem cuisé lan muy cuisé tax na yow nga mun a ak problème bi lu mu ti am que ça soit problème da xaalis que ça soit diw ak diw nañu war a fal mais warul tax ñuy mën a xeex ci biir jàkk te yu mel noonu sax ñu bañ ko def si biir jàkk ji moo gën puiser. xam nga xam nga xam nga nit. dañuy xool seen intérêt te bañ a xool dañuy xool intérêt nit ñi te bañ xool seen intérêt personnel. mais loolu fépp. parce que hmm. seen ne imam wala dara. dafa loor a doon koo xamante ni su waxee gars yi dañ koy déglu. Hmm. parce que dama lay wax benn affaire imaginel àjjuma ñëpp sanca ba jekk ku nekk tuuroo parfum ba gën a neex yow sa kurus taxaw yow nga jug sanca ba jekk taxaw tiim jaamu yàlla yëpp di war a wax. kon kooku dañ ko war a xool. te bi dëgg c'est ça Lucar xam naa ne tey moom émission bi neex na loolu. loolu neex na trop parce que tey dañoo def actualité def fii des faits divers. Euh, mu nekk loo xam ne lu am solo la. Mhm. Euh, dañuy am mbégte. Mhm. Euh, partager ak yow plateau bi comme d'habitude. parce que <laughs> tey fait weer sax li li mhm. ci wax dafa dafa am solo. non dafa neex tey ñëw ñu actualité kese dañoo laaj fait divers. waxtaan vraiment toj njax yi toj mbir yi. tey di am mbégte dalal la ci plateau bi Papa Dieng Sala. waa di am mbégte rek yow di teew ak yow mais aussi tamit nag mbokk ami internet Kër Ndanane TV. ñuy seetaan boobu ba léegi di leen si jaajëfal di leen ziar bu baax a baax mais aussi tamit di leen jox rendez-vous prochainement dans un émission. café Show Ndiaye Lukaar aca mu ngokk gars yi comme ni mu la ko waxee loolu nañ leen indi woon tey actualité ni leen indi woon actualité du jour ak li nga xam ne ne tamit moo doon fait divers euh, beneen bi ci topp tamit mooy que dañuy euh, damay euh, wax big dédicace à Jaja papa mu nekk mu nekk mu tudd Chef Diop Abdourahmane c'est un frère kon Jaja mm-hmm. big dédicace à toi. Mm-hmm. Euh, mu nekk xale bu ndaw xale boo xam ne xale bu yaru xale bu teey mm-hmm. euh, xale boo xam ne daa bëgg papa mu waxee mu ne papa di jëppi jëppi mais ñu ngi la Jaja <laughs> nee ma maa ngi lay euh, wax big dédicace à toi Chef Diop. amal jàmm frère kontaan ci yow ci kaw loolu fa nañu jaaree tëj li nga xam ne mooy émission Café Show Plus tey suñu invité bi comme ni ñu wax rek gàllankoor la am. parce que gàllankoor mënul ñàkk. mais tey dañoo fas yéeneen waxtaanee wàllum politique. malheureusement activité yi xaw ko tëj donc on se donne Hervé vendredi incha allah c'est beneen émission Café Show plus big respect à vous tous yéen ñi ñuy suivre ci biir Kër Ndanane am leen fu lay am leen fu partage am leen fu lay commentaire jaajëf. dëgg neexoon. njaruñu foto ah.